salaamaaleykum suñu mbokk internet yi ñuy topp ci Top TV l'officiel am nañ mbégte ak kontaante bu baax a baax a baax di leen dalal ci seen euh, interview yi nga xamante ni taamu nañ di leen ko defal ak seen i yi nga xamante ni moom ngeen di taamul seen bopp tey nag ñu ngi ñëw Nord Foire seet si koo xamante nii mu ngi bàyyeekoo Medina ñu koy wax Birahim Ndiaye di koo xamante ni ñëpp xam nañ ko ci way mu doon koo xamante ni euh, bu wayee nga ni macha allah li muy way am na solo ba tax na tey moom lañ seet si fas yéene waxtaan ak mu wax ñu kan mooy Birahim Ndiaye lan moo waral tekkaaral bi waaye tamit fan yi néew rek gén dégg nañ ko euh, ci way boo xamante ni way bu doy waar la boo xamante ni yëngal na àdduna rawati nañu fi nga xamante ni mooy Sénégal parce que li ñuy dund moom la jël indi ko daat koy way Birahim Ndiaye ñu ngi lay nuyu di la dalal ci Top TV. waaw maa leen di fay waa Top TV maa leen di ziar bu baax euh, di rafetlu seen teewaay fii di leen gërëm bu baax mën naa ni Birahim moom jarumay présenté wu quoi nit ñi macha allah kan mooy pa Birahim itu donc euh, comme li nga wax ci euh, single bi def nañ ben single euh, muy wax ci affaire u fen donc voilà gars yi apprécié nañ ko aussi amna ci ay retour yo xamanteni ni yu positif la quoi parce que li nane ko gis nane di nga xamni nane gi ni donc deug mom du rombi ay nop alors deug du rombu ay nop ku gis nane di nga xamni nane gi Birane dina ñew ci single bobu mm-hmm. mais bala ñuy dugg ci waxtaanu ci wax ci single bi mm-hmm. euh Birane jaay fan la juggé ba dugg ci musique bi

alors sénégalais yi xam nañ Birahim Ndiaye Birahim Ndiaye euh, fël ci benn méthode musique boo xamante mm. ni euh, musique bu spéciale la euh, ci li muy def parce que li muy def dañ ciy sentir li nga xamante ni moom mooy fond jazz dañ ciy mm-hmm. sentir li nga xamante ni moom mooy fond reggae Birahim nan ngay composé loolu nga xamante ni yaa ngi ciy sentir ay fond yu bari. waaw loolu variété musicale bi moom mooy waral loolu parce que dama def variété def reggae def bi def rap et aussi daan. déglu façon musique bu nekk bu nekk bu nekk bu nekk bu nekk da ngay dem ba da am facilité ci yenn euh, yenn musique yi da ngay am facilité ci bind da ngay am facilité ci composition da ngay am facilité ci euh, ci euh, créer mélodie harmonie et tout te artiste moom il faut être complet mooy que ni nga toog créer loo xamante ni vite fait lay nekk quoi dafa am créer loo xamante ni parfois dafa may sax ay reetaan quoi da toog nii créer dara mu nekk mayu yàlla daal. ba eh, sama album bu ñëk bi mako bindé bi mi génné dañ doon laaj ñu eh, bari ke kan mo bind kan mo bind sax way man maa koy bind lepp ci mu ah. yalla quoi. yaay bind say morceau may bind sama affaire damay hmm. créer sama air bop parfois damay suma soxla dara damay créer air bi eh, ci sama téléphone yone ko nit na topal air bi rek nga defal ma hmm. bit parce que nit ki mun na mun way mun nga mun neex baat mais do mëna créer ay mélodie do mëna créer ay harmonie hmm. do mëna créer Euh, euh, direction musicale fa ngay jëm doo ko xam quoi. Mhm. donc bu ñu yàlla mayee ñu mën loolu la ñuy sant rek. jaar na fi téye lu bëree bëri waraloon Birahim bokkoon ci ñi nga xamante ni gëj nañ leen a gis ci seen bi. Mhm. lan moo waral loolu. waaw man franchement parfois du ma sax tal affaire scène bi quoi man sérieusement parfois ma nekk samay business parce que li ñu naan kese du àdduna quoi. Mhm. suñu liggéey la mais euh, mënuñu jàpp ci loolu kese mu ñu yaakaar loolu kese non. parfois ci leneen. yalla xamne ni des fois duma sax tal musique des fois ma tok sama copain yi ne ma mais yow kan nga gëdi a euh, vidéo euh, depuis décembre laa nga doon génnee Thiès ci la gëdi a vidéo après tok japp sama self quoi nek ci sama business euh, macha allah te du ma du ma wàññi dara nan affaire mom bu ko fi yalla defee def na fi ba paré sa bo juggé rek xam nga fay nek dal <laughs> alors Birahim si ci dañuy ñëwaat ci sa album album bi nga uh-huh. njëkk a donc album boobu amoon na benn titre boo xamante ni sénégalais ñëpp jëloon nañ ko. Mhm. loolu lu la defoon. en fait nga génnee album mu am ci benn type boo xamante ni. Mhm. Euh, dafa am version mbalax amaat mhm. version acoustique léegi sénégalais yi ñëpp jël ko ñëpp. album boobu la jógee surtout ci morceau boobu. waaw parce que ci façon composition bi. façon façon bi ngay composé la rek. loo xamante ni dafay dafay euh, laal ñëpp day laal tubaab yi sax da nga gis tey su ma la waroon sama téléphone am na tubaab yoo koy reprendre. surtout yow ki ma doon seet si. mu ngi sama téléphone et xam nga. Euh, mooy li ma la wax ci côté muy mélodie ci côté texte dafa c'est c'est important quoi ay takk nga sa sër ay su ma liggéeyee teral dafa nekk ay wax yoo xamante ni te aussi man damay je préfère di wax ay wax yu raar. message la quoi du ma bëgg sax di wax lu nit yi di wax. Mm-hmm. ma préfère ma euh, préféré ma gëstu fu grave foo xamante ni vraiment su ma ko génnee nit yi dañ ci gis seen bopp quoi. Mm-hmm. alors mu nek lo xamanteni dan dañ ko dañ koy top ba ci single par single nga jóge ci album mhm. euh tok ben moment dégguñu la wax nañ ci léegi nga ñëwaat ak single chas mhm. single cas don ben tamit challenge bo xamanteni xalé euh, xale jigéen yi bëgg nañ ko mhm. di def tiktok xam nga euh, nga waat fofu nga ñëwaat indi benen single bi nga xamanteni mom nga mujjé wax léegi muy fen lan mo waral nga bind <laughs> fen ak parcours bi ni nga jógee fële jaar fi jaarat fi ñëw indi fen lan moo xew. non mais déggoo ma ne la dëkk bi yëpp ay fen la. Mhm. lu ci bari ay ay ay ay fen la ko li lay wan fen la li nekk ci seen biir fen la xam nga ni ñuy dundee fen la donc moo waral sax boo gisee natt yu bari yi am ci àdduna bi yëpp fenante bi bu bari bi la ko waral te kenn ñemewul taxaw tey wax yenn affaire yoo xam ne da ko jëng ci da nga ciy aw nii parce que <laughs> am na yoo xamante ni du ma ne dañu parfait non ñu ne parfait mais am na yoo xamante ni tey fit mooy tax nga koy way. fit tey moo tax nga way loolu tey nga nga nga non boo déggee mën na la fit la tey tey mun mm-hmm. loo woy fen nekk fenkat mm-hmm. nga am mm-hmm. fitu taxaw ne da ngay way fen tey say waa kër say waa kër seetaan la wala say xarit xam ne yaa ngi woy fen te yow fenkat nga pour nga woy yenn affaire yi foog nga il faut que euh, nga nekk nit boo xamante ni <laughs> da nga dëggu ah. da ngay dëggu da ngay de man sañ naa way lu ne. parce que ama compte ma rendre à qui que ce soit. mais est-ce que nekkul da nga ko dund moo tax nga way ko. mais da nga koy dund da nga koy dund da nga koy dund am ñoo xamante ne da nga gis ñu naan la Pape Birahim lii wala amul lii wala amul kii aajo wala amul laa wala ñu naan la moom lii la la te yëpp ay fen lay nekk. Mhm. fen ay fen rek la. donc nga bind sang bi pour montrer parce que fen fen la gis nga affaire fen. Mhm. yàlla bu wax al kas bu mooy fen du amul ay làq-làqal quoi parce que nee na la fen moo gën a garaaw njaaloo. Mhm. yonent bi waa ñëwee ci moom ne ko man damay njaaloo man damay sàcc man damay def lekk laa la def na ko léegi li ngay def yëpp continuer mais bàyyil fen fen kese laa la tere kon message la boo xamante ni Birahim daf koy joxe mais dafa nekk lu xaram mhm. dafa nekk lu xaram moo am ci moo am ci euh, euh, société bi moo am ci euh, yéen fi ngeen di liggéeyee moo am ci seen kii entreprise yi ngeen nekk ay fenant yëpp ay fenante la rek wala ngay fen pour nekk nekk au dessus mhm. jaxase kii ki ak kii jax kii jaxase kii ak kële kii nettali patron bi lii kii mott kii nii nii yooyu ngeen ngeen ngeen war a bàyyi doomu aadama day day day day dëggu doomu aadama day gëm yàlla ki ngay liggéeylu ki lay liggéeyloo nit nit kese la daf lay fay intérêt la gis ci yow nga gis ci moom intérêt bu la bëggee yëpp nga jël ko laxas ko ak entreprise am sànni ko ca xaj mhm. man noonu lay dundee quoi alors noonu ngay dundee Birahim dañoo topp sa parcours ba dañoo dégg ci wu bëy ñu ne Birahim jóge na Prince Art. Mhm. sa digënté ak Prince Art lan la won té kula xam-xam ni Prince Art ñoo la lancé. Mhm. lu tax nga jóge Prince Art. ba mais alhamdullilah fofu mom né fofu mom machallah mom fofu mom sama kër la aussi machallah allah rek li ñaan ku nekk des fois da ngay tok benn instant bo xamanteni da ngay bëgg rek euh, dem def sa parcours bop comprendre nga. Mhm. mais du doon ben du doon ben problème. non si parce que. daf lay yok inspiration wala. non parce que nit laa. julit la comprendre nga gëm yalla nit day ñëmé wét ok. man parfois sax bu may dëkk Medina dañ may fekk si ma nekk ni ma yow lan moo tax ngay nekk yow kese man su ma nekkee man kese damay nekk ko mhm. da ngay dem nag pour euh, détaché wu pour def sa yoonu bopp boo xamante ni xool lan ngay def say propre composition def ay affaire ku nekk da ngay ñaan yàlla parfois nga nga mhm. nga kii doo bàyyi ba affaire bi di wees wala affaire bi nga toll foo xamante ni peut-être que amatuloo ben capacité bi wala yoy après ngeen da ngay bayyi fene wala yoy mais jàmm ak salaam macha allah jàmm rek amul hmm. yoy non kon sa digeun mën nañu dal sa digeunte ak prince ar jàmm jank ba léegi quoi bien vrai que jogé nga ko fa. Oh, ayo man jàmm lay dundé jàmm lay dundé jàmm lay dundé mais man damay je préfère dal la lima bëgg def yépp xamna lima bëgg def man. Hmm. lima bëgg def fokk ma wét pour mën ko def. pour nga mën ko def. j'espère que nit ci dinañ comprendre quoi lima bëgg def man fokk ma wét pour mën ko def. ok voilà. Mm-hmm. alors ci biir li nga bëgg def foog nga wéer pour def ko. Mm-hmm. Euh, Birahim nga am sens côtoyer ay artistes yu mag ay ténor ku mm-hmm. mel ni Youssou Ndour. ñooñu nga liggéey ak ñoom. lan la la def ci sa carrière. waaw mais ñoom da ngay xool ci ñoom rek seen jaar-jaar ñoom sax ñoom seen parcours noonu la demee dañuy nekk di liggéey ak ay nit jékki-jékki benn sant ñu détaché wu. dem liggéey am la am fayda xam li ñu bëgg ah. aussi jël seen carrière def ko ñu nekk ay nit yoo xamante ni ils sont vraiment professionnels quoi. man dama bëgg lépp lu nit def mu mu mu am euh, mu am benn euh, contexte boo xamante ni moom ngay demee mooy am dignité am personnalité xam sa valeur ni doomu aadama day xam valeur am naan doomu aadama du du naw boppam jullit du naw boppam mais day xam boppam tok ñu xam seen bopp jox musique bi valeur parce que ñàkk jox musique bi valeur moo tax léegi boo xoolee artistes yi sax kenn jox leen ay valeur mm-hmm. <laughs> da ngay xool sax léegi ñi nga xam ñoom ñooy def leneen sax la ñoom ñoo gën next star artiste yi alors foofu dama fi dama damay profito laaj la euh, noo gisee musique Sénégal mm-hmm. actuellement non non mooy li ma la parce que dañ ko jël dañ ko jël yombal ko te waruñu ko yombal non warul yomb parce que bu njëkk bi star star euh, doo ko xam sax mais yaa koy yaa koy wëri mm-hmm. mais léegi bu fekkee musiciens yi ñoom ñooy dem wër nit ñi nekkatul léegi star di leen ñaanaat di leen ñaan pour que sax ñu ñëw seen soirée dimbali leen pour ñëw. Mm-hmm. wala nga war a tëgg dem nit ci pour ñu dimbali la jëndal la li ngay kii mais léegi keneen buy tëgg te demul ñu dimbali ko jëndal ko mu maye ko duñ demal kenn. Mm-hmm. Mm-hmm. yow yaay star bi yow yaay woy ñoom ñuy kontaan. yaa war a da ngay am sa dignité liggéey lu baax ñoom ñu fekk si la. man dama liggéey sama album daw ma ci ma sàmba daw ma ci ma baate ma ma demb ñëpp bëgg ko tout le monde. ba macha allah yàlla dogal na lu ma bëgg lijjante ci dëkk bi dama koy lijjanti facilement parce que nit yi am na lu ma wane loo xamante ni nit ñi gis nañ ko bëgg nañ ko mooy que ni way naa lu nit yi mën a dégg mm-hmm. sama comportement ma defar ko am sama dignité parce que bëgguma sonal kenn man man bëgguma sonal kenn mënuma sax dem ci nit di ko wax sama problème parce que nit pour man boo ko waxee benn yoon sa problème sax mu mu commencé la daw mm-hmm. yaa ngi may dégg mm-hmm. donc su ma weelu neex boo mënee jënd nga jënd soo mënee déglu nga déglu su may tëgg boo mënee ñëw nga ñëw soo mënul nga toog mais nañu bàyyi public bi ñu jël def leen star ba ñoom ñoom ñooy doser artistes yi léegi quoi. Mm-hmm. kon daal da nga jàpp ni public bi ñoom ñooy doser artistes yi. non li ma wax dëgg la wala dëgg yow mi may poser question yow. non ay dañuy waxtaan parce que affaire bi tamit du question ay kii nii nii man newoon fi di waxal nit yi pour ñuy ratatati ñuy kii de dama ne mm-hmm. dañuy waxtaan ma ak yow. li ma la laaj li ma la wax dëgg la wala du dëgg. dafa am bu njëkk ba musoo teg Alioune Mbaye Nder sa bët Uh-huh. te da nga ko daan bégee fu mu tëgg ba mu da ngay daw dem te xamoo ko xamu uh-huh. mais lan moo la neexoon musique bu neex ak uh-huh. aussi li muy li muy li muy dégager ci ci ci ay euh, euh, ci ay paroles yu am am am solo texte bu riche suñu papa Thione Seck dem si yàlla si lan nga da nga daan daan tëgg Kilimanjaro fees dell te xamuloo ko jaarul fii demul ci kenn ne ko jëndal ma ticket jëndal ma ci jëndal ma leen Youssou Ndour waxi noppi mais vraiment dama ciy boole sam bopp parce que du ma génnee bopp ci génération bi la ñu bokk mais pour man buñ gënee mën a jël affaire bi def ko lu professionnel te régler seen bopp te régler quoi. régler mais est ce que nekkul dañoo war a seggaat xoolaat musique bi quoi parce que ku jóg ne da ngay ku jóg ne artiste nga est nekkul tam loolu mooy indi benn benn ñu dem ba artiste yi dootuñu xamati finalement fu ñuy seen tànk. est tey euh, man du man maay sax toog ne ku nekk kii war na way kii warul way yàlla moo dagg gémmiñ ñëpp mu neex nga way boo xamee daak boo xamul dara yow lay noppal. comprendre nga. Mhm. ku mu neex nga way ku mu neex nga def lu neex. mais peut être que ñi nga ni ñoom ñoo nekk ci télé rajo yi ñoom ñoo war a xam lu baax si euh, public public bi médiocrité bi dafa bari ba léegi dootoo xamante daal mm-hmm. te am na yoo xamante ni peut-être que nee naa <laughs> nit ñi buñ ko bëggee wax des nga wax benn affaire ñu ne non kii dafa laa dafa la alors que dëgg ngay wax ah dëgg moom dëgg la après loo ci loo ci góobee mm-hmm. sa yoon nekku ci en ah, temps fou alors Birahim est-ce que am nga benn orchestre boo xam yaay liggéey ak ñoom parce que foo leen soxlaa gars yi ñëw non man am naa sama orchestre mm-hmm. am naa sama bu ñu jé mom vraiment da ngay gis lu extraordinaire. Mhm. parce que mon seetaan naa la en live. Mhm. pourquoi Brian bu jé en live day joxé lu bari bari. Mhm. da len da koy xol xamni ki limi def mom moko gëna bëgg sa gaay ci ginaaw wa ñom parce que dama dama yag ak ñom quoi bo yagé jouer ak ay nit da ngay dem ba bu ngeen di jouer day da ngeen di am ben da ngeen di soudé wu quoi. wa dañuy soudé wu quoi. waaw lool mo waral bu ñu jouer day da ngay gis benen jé benen façon nit quoi. alors Brian lan moo nekk ci sa kanam comme projet. waaye projet yi ma nekk nag bari na te mun naa ne man moom. mais xanaa kon kon kon kon dëxëñu bu yàgg bi nag boo génnee di nga génnee dara loo xamante ni fans yi dinañ ci dinañ ci apprécier comme. non mais si. Mhm. mooy li ma lay wax léegi tey <laughs> li naan tey am na ñoo xam dañ may dañ may naan Birame li nga woy dafa diis fen bi dafa diis quoi. non dafa diis nag. Ah, mu ngi noonu. dafa diis mais parce mais diisul ci man. yow mi ko bindul dis yow non man disul ci man parce que damay xam ni nañ bayyi fen rek amul amul problème hmm. fen mom dang koy bayyi <laughs> alors suñu bokk internet yi ni sétane ci top tv l'officiel birahim ndiaye nee na sénégalais yi bayyi fen te ñuy wax deug alors du sénégalais yi pay fen hmm. ñi fen nañ bayyi fen kon fen kat yi nañ bayyi fen nañu bayyi fen hmm. mooy li ma la wax fen kat yi ñom ñoo nekk ci biir kër yi ñoo nekk ci société yi ñoo nekk ci entreprise yi ñoo nekk ñoo nekk ci lepp ñoo nekk ci biir musique bi ñoo nekk ci biir euh, euh lamb ji ñoo nekk ci biir fep julit day jombale boppam ay fen ak ay jaxase jullit day bom jombale boppam ay teg ay dil jullit day jombale boppam neexal doomu aadama pour pour jege ko wala dara bul def loolu booy jege di man nga jëme jege ji yàlla le message jaamu ji yàlla nga jege ji ko pour mën a am àjjana mën a am njëgalam mais pas que ngay neexal pour jéem ko jege wala pour que mu am fu mu la teg non yooyu man ma loolu mhm. yàlla xam na loolu mhm. dama je me dis sama àdduna yàlla ak yonent bi yalla ak yonent bi ñom laa faalé man a part sama wajur yi nga xamanteni jox na len cër ah jox cër nak doomu adam yi nga xamanteni yalla suñu borom neena nga jox len cër moy ke ni nga bañ len togn nga bañ len jaay affaire nga bañ len mm-hmm. mais le reste yalla ak yonent bi point nyom ñor mm-hmm. te ñoñu ku ñu ñorul man ñoroma mm-hmm. yalla ak yonent bi ku faalé faalewul man faalewu ma la dafa leer yalla ak yonent bi la la wax ku len respecté wul man ma la dëgg dafa leer alors voilà loolu message bu leer yaakaar naa ne ñëpp dégg nañ ko. Mhm. alors ci projet yi. lan mhm. lan ngay waaj dangay ngay génne album. Mhm. wala da ngay génne EP wala looy waaj. li ma li ma jor mu bari na parce que man li ma man damay man damay damay damay foo di def li may def man damay foo di def li may def. dajale ci ñàkk lu bari mais damay foo di ko def. mais li ma ëppal importance mooy sama sijaada bi ak sama course bi ngeen doon lem nii. ci lan la fekk maanaam leen bàyyi leen di ko nappaaje nii. ci lan la fekk moom man moo ma gënal lépp loo gis. Mm-hmm. Mm-hmm. lii dama ciy kaf rek damay foo musique bi foo la ak bégal samay fans. ok kese kese kese kese. Mm-hmm. jeex na tàkk. alors Birahim lan moo tax say clip di riche. foofu moom foog ñu lan kan moo ne sa ginnaaw di la financer ci côté vidéo yi parce que Birahim vidéo bu mu def. bu defaatee beneen mooy dàq. lu tax say vidéo di riche. waaw non mais parce que dama nekkoon di liggéey ak label bu mag ah macha allah Prince Art duñ dara du fa génn loo xam ne lu bon la muy ci musique muy ci vidéo muy ci lépp ah. mhm. parce que du euh, euh, du structure boo xamante ni dañ lay bàyyi di n'importe di n'importe comment na mhm. xam nga. da lay tàggat quoi. da ngay tàggat génne fa ay vidéo yu rafet sol ci lu rafet. xam nga mhm. clip lu rafet. donc loolu daf lay topp dafa mel ni tey éducation boo am sa biir kër moom ngay doxee ci mbedd mi. macha allah foofu moom boo fa génnee moom da ngay nekk au top dara loo xamante ni. Euh, lu ñàkk fayda la même doo bëgg a way lu ñàkk fayda hmm. que ñu consommé ko que ñàkk ko consommé dama bëgg nga li may way nit dégg ko xam ni right right waaw jan baa dal quoi dem bee dal mu dal la nga xam xam sa bop rek lay mhm. après bu ko defé ça va est ce que mën nañ xaar def album bo xamanteni euh album pas mal de featuring ak mhm. artistes yo xamanteni ni ñu ngi nek au niveau international parce que yow da nga polyvalent wax nga ko légui ci départ bi parce que mhm. da ngay def R&B, di def reggae def jazz est ce que ñu mën nañ xaar euh, album bu mel nonu ci yow si si si man parce que album bi may waajal pare pare ni sax du amul mbalax bu amé mbalax ben lay nek quoi Eh, lepp eh, ndaysan ndam si yalla si chon pam papa coon ma ngi bëggoon def ak mom ben mhm. ben morso moom sama ben morso moom daf ko dégg ne daf ci way mhm. eh, far mu febar après mu yone ne dafa febar na xaar mu tane mhm. vraiment ndaysan ci la génn aduna way bu xam mom dafa bëgg ay message comme man damay bind ci ay message may wax parolier ah c'est un euh, parolier man damay gis sam bop ci ok damay bis sa gis sam mbopp ci moom moom moom net aussi ñun euh, ñu ñu ñun nuroo euh, façon bi ñuy wayete parce que boo déggee façon bi ñuy wayee mooy que ni dafa am euh, Papa Thione ndeysaan dafa amoon justesse justesse ci voix am man je vois que justesse bi may wayee Mom, dama koy dama ko dama ciy gis sama bopp damay gis sama bopp ci moom. kon on peut dire moom euh, yow daal idole la woon ci yow. non bu doy waar. Mhm. bu doy waar sax moo taxoon ma ne damay damay moo taxoon ñu way maak moom te way boobu bu peut-être que bu génnoon ci Sénégalais yi dina doon doon doon na doon benn surprise bu doy waar sax. Mhm. bu doy waar après ci la génn àdduna après ma rendre rendre ko hommage way ko benn way. aussi tam mu génn gaay bëgg ko. Mhm. Euh, en reggae sax laa ko def donc voilà. Mhm. alors sa sa relation ak euh, artistes yi nouvelle génération bi nga xam yow maase nga ñoom. Mhm. est-ce que yéen ngi demlante yéen a ngi dëkkalante gars yi ñu lay invité seen spectacle ci mhm. seen kaw seen ngay ñëw di bëf est loolu mu ngay am. mais demlante man mooy ça veut dire quoi demlante mooy lan. est que yow ngi dem ci seen i événement ñu ngi am événement allo Birahim. man la diw dama am événement dama bëgg nga ñëw. est-ce que loolu mu ngi am seen diggante. ah non mais parfois nit invité la boo amee jot nga nga dem boo amul jot doo dem. amee ah, jot nga dem boo amul jot doo dem. mais yéen lépp daal bon mën nañu seen diggante léegi. Ah, lépp naaj booy samay rakk lañ. Mhm. vraiment booy samay rakk lañ xam nga. te man moom des fois sama temps day nekk dama koy concentré wu ci leneen quoi. Mhm. mais samay rakk lañ ay sa rakk yoo xam ne dama leen apprécier bu baax a baax mhm. li ñuy def nice ay jàmbaar lañ bu ñu amee lu ñu leen teg ci yoon rek teg leen ci kii moom vraiment parce que yor nañu baat yu neex xam nga. vraiment dama leen di bëggee ñoom ñëpp ñëpp ñëpp di leen ñaanal yàlla defal leen jàmm rek. Euh, ñu gën a nekk ay professionnel rek incha allah bu ñu ci jàppee moom dina dina baax. Hmm. alors message bi nga xamante ni su ma la woon joxe ko. ci ci hmm. musique bi. Hmm. ban message ngay joxe. loo xamante ni mun nañ ko dolli ci musique bi wala loo xam mun nañ ko génnee loo xamante ni bokkul ci musique bi. lan lay doom non mooy message mooy que ne mooy li ma la wax sànq mooy que ne ñoom ñooy war a gondi public bi. public bu nga gondi leen yaay def lu neex kii leen du ñoom ñoo lay gondi ñoom ñoo lay ñoo lay yaa di forcer seen sa bopp non non. mais la ñoom ñu ñëw quoi. Mhm. mu naturel quoi. yow mu naturel quoi. Mhm. am na lépp lu génn ci magasin rek prix bi day daanu. waaw ah, loolu de moom dëgg la. comprendre nga. Mhm. lu fa génn rek prix bi wàcc na quoi. kon mën nañu wax musique bi bon yenn artistes yi ñoo ngi wàcc prix bi. non mais ñu ci bari ñooy wàcce dañ ñooy musique bi wàccee seen prix bopp ñoom. alors Birane suñu émission dañ koy tëjee ak fi nga xamante ni fa nga dëkk. sa relation ak waa Medina. ba nga woy leen. waaw no parce que foofu laa juddoo laa yaroo. màggee fa defee fa lépp jàngee fa xam nga am fa samay rakk yu baax aussi tamit ñu nekk fa di way mhm. ñoom Sori Ba El Hadj Keita ñoom euh, Jibi Sey xam nga mhm. ñu nekk ay rakk ay El Jazz euh, ñu nekk ay nit yu ma yu ma respecté waay ñoo mhm. xamante ni bu ma leen woowee sax dañuy dañuy ndeysaan dañuy kontaan waaw ñooñu moom ay jàmbaar lañ la naan euh, Medina warul ñàkk ay ndaanaan à chaque fois dafa war a produire ay ndaanaan quoi te booy ay jàmbaar lañ ay jàmbaar lañ macha allah imagine toi booy man maa la njëkk génne album tey El Hadj Kéré def na grand théâtre bu neex bu fees del El Hadj El def na grand théâtre bu <laughs> neex bu fees del war mu nekk fierté Médina la quoi man dama daan wax nii man balaa may def ay grand théâtre foog ma am ay ñetti album wala ñaar nga xam ne damay woy ba doyal du jël ay woy taawi ko ba mu si ngom ba mu nekk ñu leen mhm. man sama philosophie la quoi mais vraiment booy def ay affaires yu réussir ko yu mhm. neex yu neex neex neex neex nga xam ne ay jàmbaar lañ parce que jàmbaar mosul euh, jóge Medina ma leen di ñaanal yàlla defal leen jàmm rek mhm. ak euh, salaam quoi wala defal ko ci booy nekk ci musique bi yëpp parce que nit ku nekk euh, bul ko xeebal li muy li muy bëgg ak li mu bëgg doon ku ci nekk am na loo xamante ni peut-être mu ngi ciy dimbali waa këram am na àdduna xaw a doy waar. Mhm. yow mun nga mën dara. a moom pourtant mhm. mhm. a a wax ñoom ñëpp ay ay kii géej laa kenn mënu ko nii. na nekk lu dëggu ci ñoom. bu ko defee rek. aussi fen bi quoi. bàyyi ñëpp bàyyi fen. <laughs> alors Birahim ñu ngi lay jaajëfal. jaajëf waay ah, di kontaan ci dalal bi nga xamante ni dalal nga ñu ko. alors di jox rendez-vous suñu mbokk internet yi nga xamante ni ñu ngi top Top TV l'officiel di leen jox rendez-vous ak beneen daanaan boo xamante ni dinañ ko jëli indil leen ko nee naa ndax ñi nga xamante ni làqatu nañ comme genre Birane yi ñoom dañoo làqatu ñun ñoo leen di jëli teg leen ci écran bi waxtaan ak ñoom bu ko defee yéen ñi nga xam ne yéen ay fans yi ngeen mun see jàngee dara di leen jox rendez-vous très bientôt jaa ngeen jëf. Top TV, une vision autrement.